alhamdulillahi alqaili fi muhkami tanzil inna anzalnahu fi laylati alqadri wa ma adraka ma laylatu alqadri laylatu alqadri xayru min alfi shahrin tanazzalu almalaikatu wa ruhu fiha bi isni rabbihim min kulli amrin salaamun hiya hatta matlaci alfajri wa nusalli wa nusallim ala habibina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam alqaili fi ahadisihi sharifa man qaama laylatal qadri imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ala kulli alihi wa ashabihi wa daa'ina bi daawatihi ila yawmi din mbokk yi seetan télévision Futurs Médias ñu ngi dellu suwaat ci kàttanul yàlla di ziar mbokk yëpp di baal ñëpp ak di balu ñëpp itam ak di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu nangol ñu sunu koor nangol ñu julli nangol ñu sunuy ñaan Euh, mu mel ni itam euh, euh, dafa mel ni ñu nga ca cappaandaw ga nañ koy faral di waxee waaye tey ñu invité woon sunu xarit professeur Pamor Diakhaté comme ni ma ko waxee woon wal ne El Hadj Assane Ndiaye na dafa ne ci yeneen yitte wala boog dégg dañoo déggantiwul déggantiwaatuñ xëy na looloo tax waaye li am solo tey ñu ngi fas yéene waxtaan ci zakatul fitri wax weeru koor buy jeex dafa am lu ñu sopp mu jeexee ko dafa am yu bari yu ci laxasu ca jeexat maanaam léegi ca jeexat ba yooyu incha allah ci lañ fas yéene waxtaan ndax ca jeexat ba zakatul fitri gis nañ ko ci ca jeexat ba aydul fitri mooy feet gi ca jeexat ba ca fukk yu mujj ya laylatul qadri naka noonu ak li ci war yépp ixtilaaful matalii fi isbati ru'yati xilaali ramadan euh, réew mi ak réew ma am nañ déclenche d'horaire naka lañ war a mën a fexe ba lijjanti seen weeru koor ba woorandoo yooyu yëpp incha allah bi bu ñu ko temps bi may fas nañ yéene leeral ci danañ waxtaan dalilu wujubi zakatul fitri dalil yi preuve yi nga xam ne ci lañ sukkandiku ne zakatul fitri lu war la alxikmatu min wujubi zakatul fitri lan lañ ci jublu waxtu ixraaj zakatul fitri ci ban waxtu lañ ko war a génne démb rek am na ko ma woon ma est ce que naa koy génne heure bi du ma ci du ma ko tontu professeur dina ñëw ci loolu miqdaaru zakatul fitri naka la war a toll man tudfa zakatul fitri suñ ko génnee kan lañ ko war a jox yooyu yëpp islam lu mu réglal boppam la incha allah bi kon professeur am naa yaakaar ne gannaaw boo nuyoo mbokk yi nga xam ne ñu ngi lay seetaan ci àdduna bi yëpp su ko defee ñëw ci tomb yi nga xam ne defe naa ñëw na ci waxtum ak itam jullit ñi nga xam ne ñu ngi woor ñu bari soxla nañ yooyu ndax yooyu mooy ànd ak weeru koor maanaam pour mu jeexandoo ak moom kon tafadal maskura jërëjëf mhm. oustaz Tayib aouzu billahi samii alalim min alsheytani irajim bismillahi arrahmani irrahim wasalaatu wasalaam ala arshaf ashraf almursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain oustaz Taib ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci koor gi di nuyu képp koo xamante ne mi ngi yewoo ci kër gi li ko dalee ci njiit la ba ña ci suuf di ñaan buur bi subhaanahu wa taala mu nangul ñu sunu koor nangul ko mboolem jullit niki noonu ñi ngi rafetlu jataay yi nga xamante ne yéen a ngi koy def ci koor gi mhm. ku seetlu dafa yëg ne seen tele bi jox na événement bi àqam mhm. ndax bi koor gi jeexee ba léegi mhm. wala bi mu commencé ba léegi gis nañu jëf yi ngeen ci jëf gis nañu tamit ni ngeen ci jàppale doomu aadama yi ñu xam seen diine ki noonu jàppale doomu aadama yi tamit ngir seen koor mën a jaar yoon kon loolu ñëpp ñu ngi koy rafetlu mhm. su ko defee comme ni nga ko waxee tomb yooyu nga xamante ne moom nga lim dafa doon ay bunt yoo xamante ne dafa am relation ak koor gi mhm. kon xam naa. dama lay bàyyi. danañ ci ñëw euh, gën ko yaatal ñu jël ko benn par benn. xanaa di fàttalil ba léegi rek mbokk yi nga xam ne ñu ngi topp waxtaan bi ne la ñuy tuddee xéwal yi. ba léegi mu ngi fii ñuy ñuy ànd ak moom euh, dama xamul Mor naka nga gisee xéwal yooyu ren nga xam ne moo ànd ak euh, barnaama ji. waaw xéwal yi maa ngi koy rafetlu. Mhm. am na solo trop. xam nga weeru koor jëf ci dafa bokkul jëf ci beneen weer. Mhm. weer la woo xamante ne yonent bi alayhi salaatu salaam doon na yéemu ci ki nga xamante ne woor na ko ba mu set wecc te yàlla faralu ko ay bàkkaaram mhm. kon jëf ci weeru koor dafa am solo bul fàtte ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne woon na képp ku dogal ku woor mhm. da ngay am yoolu gamuy am mhm. ba pare am sa bos kon loolu lu am solo la mooy yi ma doon wax ci ndorte gi ni ngeen taxawoo koor gi ci ay émission yoo xamante ne yu am solo la di yéen nit ñi en même temps di leen dimbali. macha allah yéen waxu leen rek yam ci waaye nag da ngay wax ak moom ba mm. pare nag jox ko lu mu dogoo. macha allah en tout cas kooku lu am solo la. waaye wax na ko mu ne ti tiyaabo en même temps tiyobu. ma ngoog ah, tiyaabo tiyobu su ko defee yooyu la am na solo su ko defee xewal yaa ngi fi ba léegi. am na fi am na saako ceeb moo ngi fi vingt cinq kilos suukar am na kafe am na tàndarma. kooku am na solo am na encore juróom-ñaari litre diw ak genn wàll. am na cinq kilos lait am na fi tàndarma fii itam am na deux kilos tomate am na café am na 5 kilos sucre ak tàndarma yooyu su ko defee yooyu wax dëgg yàlla mooy ànd ak émission bi léegi su ko defee Mor bu ñu ñëwee ci li nga xam ne mooy al maqsud bi zakatul fitri maanaam zakatul fitri mooy muurum koor lan la jublu ci muurum koor jërëjëf oustaz Taïb hmm. xam nga zakatul fitre boo ko xoolee ñaari baat la hmm. baat yi ay baatu arab la su du jëlee baatu zakat dafay firi li nga xamante ne mooy azaka mhm. alfitre mooy firi dog mhm. kon boog soo ko boolee da ngay gis ne que lañ ci jublu mooy asaka gi nga xamante ne moom la ñuy génne wolof di ko tuddee ko tuddee muurum koor mhm. kon loolu moom mooy zakatul fitre bi euh, ñu jublu ci nag mooy lan zakatul fitre ñaari mbir moo ko war benn bi mooy Euh, nit ki durant bi muy woor ñàkkul am na ay tolof tolof yoo xamante ne def na ko ci koor gi mhm. te yëgu ko ay njuumte ci wàllu wax mhm. ci wàllu jëf mhm. ñu ne kon kat zakatul fitre boobu dana ñëw daal di effacer loolu benn ak li nga xamante ne mooy toomatan lil masakin yonent bi alayhi salatu wasalaam dafa ne woon agnuhum fi haazal yawmi ani suali na ngeen fexe ba nu woomle ba nu am ba bis bi du nu nekk di laaj te mooy way ñàkk yi mhm. kon mooy fexe ba way ñàkk yi am benn ñaareel ba mooy yàlla faral la ci say tolof tolof yi nga xamante ne moom nga defoon ci koor gi mhm. ndaxte nag doomu aadama matul mhm. koor gi ñàkkul am na ay wax yum ci wax yoo xamante ne warul wala mu jëf ci ay jëf yoo xamante ne gis na ne njuumte la kon muurum ko day ñëw ngir effacer yooyu en même temps comme li ma la waxoon mooy dafa ñëw euh, ba tey ngir woomal ñi nga xamante ne dinoo ñàkkoon ndaxte yonent bi nee woon na bisu feet bi su sañoon du ñu nekk ñoom it di wër mais mhm. dañuy ànd ak ñun feet bi. maanaam moo waral ñu koy ñuy yi. ci bu mhm. ko gënee miin fii ci senegal mhm. ñiy wër di yalwaan par jour. Euh, ñu fexe ba jouru julli gi jouru feet la. te feet fekk am na ñuy wër di yalwaan du ñu ko tuddee feet. dëgg la feet moom ñëpp war feetu. dëgg la ñëpp war a noppalu ñiy yalwaan nag ñi nekk ci euh, feu rouge yeeg dañu war a dem ci seen kër yi nekk à l'aise mm. parce que tey bésu feet la. dëgg la kon génne zakaat yi jox leen ko ñoom ba bés boobu ñu xam ne tey feet la toog ci seen kër yi. Mm-hmm. loolu bokk na ci li nga xam ne ci li yàlla bëgg ci bésu zakaatul fitri la en même temps wax nga ne tolof tolof yi nga def ci sa Ramadan man nga wax ndax nit matul. dëgg la man nga wax lu jaaduwul man nga jëf lu jaaduwul te. xëy na yooyu ci matadi doom aadama la zakatu fitri bu ñëwee yooyu daf koy effacé ba mu set kon loolu wax dëgg yàlla am na solo moor dama xamul nag dalil wujud zakatul fitri eh, bon dalil bi euh, euh, bari na boo demoon boo demoon ci euh, hadis mhm. da nga fekk hadis buñ jëlee ci ibn abbas mu mhm, ni mhm. farada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam zakatul fitri Euh, farataal na ko ci lan min zakarin wa unsa mm. wal kabir wa mm. saghir mm. ah tomatan lil masakin léegi kon li kon su ma déggee mooy faratal nañ ko mais ñëpp a koy génne ñëpp koy dafa est-ce que du ñuy woor rek ñoo ko war a génne wala déet euh, déedéet moom nag dafa doon loo xamante ne euh, da nga ko war a génneel njaboot gi yëpp même ñi nga xamante ne wooruñu ndaxte buñ demee ba wax as-saghir ku ndaw ki mhm. Mhm. xam nga ne kooku du mukallaf woorul suñ demee ba ne ki nga xamante ne dafa judd mhm. laataa it bi ba ci kooku da ko koy génneel ndaxte xam nga li tax ñu koy génneel ñooñu euh, zakatul fitre comme li ma la waxoon hëdëf bi jubluwaay bi mooy ñu fexe ba ñu ñàkkoon am bu dee ci bis bi bu boobaa nag soo génneelee ñi nga xamante ne wooruñu woon day tax mu gën a sakkan mhm. mais boo ko yemalee ci ñi woor rek mhm. mën na am du sakkan kon euh, zakatul fitre boobu euh, yaa ngi koy génneel xale bi mhm. mag bi euh, xale beeg ku ndaw ki ñëpp ñoom nga koy génneel dem nañu comme sànq ni ma la waxee ba ki nga xamante ni dafa judd laata iid bi liir bu ndaw bi laa la bëgg a wax ci fajar gi kooku sax din ko. xam nga dafa ku ñëw barki dem rajo. Hmm. di ma laaj affaire zakatul fitri hmm. mais ni mu ma waxee ci situation hmm. moom dafa soxla zakatul fitri moom dafa soxla njox ko. parce que situation bi mu toll. mayu ko moom mu génneel njabootam. même buñ ko ko joxoon sax defe naa ne bokk na laaj ci soxla. ma yaakaar ne ki nga xam ne dafa a génne zakatul fitri te soxlal ko boppam nag. kooku léegi moom naka lay xam nga kooku boo ko seetloo. Euh, kooku moo tax ñu koy génne. daa fàtte ne zakatul fitri bi ñuy génne. ku mel noonu moo ko moom mhm. xam nga yow ma ko moom mooy ki nga xam ne dafa ñàkk ba mhm. amul mhm. kon moom waru koo génne léegi ñuy génn moom dañ ko caa war a jox bokk ñu ngi koy jox xam nga am na benn xadis ci jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy waaja àndoon ak soxnaam ci weeru koor te xam nga ne sa soxna boo àndee moom ci weeru koor te tey ko xam nga ne kafaara ya ca war lu demee ni kii goreel jaam leel juróom benn miskin Euh, lu demee ni ki tamit woor ñaari weer yu mhm. tegaloo mhm. ba nu ci àggee ba mu ñëwee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba ne ko man dey dama ànd ak sama soxna kafaara googu war mhm. bi mu ko amul yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa euh, cibb tàndarma jox ko ne ko pour mu dem leeleel ko waaja lam ko tontu mooy fii may wax ak yow ku ma gën a ñàkk gisuma ko yonent bi ne ko far ko jël kon foofu lan fay déggee mooy soo ko mënul wàcc na la wàcc na la waaw l'islam amul kenn koo xama fenn foo xamante ne dana ci forcer doomu aadama bi mhm. pour mu génne dara macha te fekk mënu ko mhm. kon waajooju li ñu koy wax mooy mënu ko kooku ci boppam da ko war a lekk moom moo tax ñuy génne ñuy génne daf ko war a jël su amul woon ñu ñàkk daf am ñoo xam ne dañuy jàpp ne ñoom même buñ ko amul sax buñ ko ñàkkee génn mhm. sax seen koor dafay yàqu wala seen koor du baax euh. te te yow yàlla joxul la loo ko génne loolu itam defe naa ne waaw kooku hmm. euh, xëy na ñàkk bàyyi xel mbir mi la hmm. ñoo ñu ñu leen di wax ne seen koor baax na hmm. xam nga yàlla lépp lum la sant te mënoo ko rekk wàcc na la te amoo ca bàkkaar lenn kay la yàlla mënta dégg mu sant la mbir nga mën ko defoo ko te defoo ko waaye comme que yàlla dogal na ñoom zakatul fitir bi amuñu ko ñooñu nanu xam ne wàcc na leen teg ci tamit li taxoon ñu koy génne mooy li ma la waxoon mm-hmm. mais ñi amul ñoo tax mm-hmm. ñoo ñu leen koy jox kon daal ki amul defe naa la nga yor war ko mën a génne zakatul fitri mm-hmm. man nga koy jëlal sa bopp léegi moo waxtu ixraaji zakatul fitri ci ban waxtu parce que ki ma laaj démb daf ne ma moom dafay xalaat mm. génnee ko léegi rek pour daal di ko kii ma yaakaar ne est-ce am na waxtu wala heure bu neexee nit ki waaw nga boo demee olama yi utal nañ ko euh, ñetti waxtu mm. dañu ne bu desee ñaari fan baax na ci génn gi Euh, ñu ne tamit waxtu wi nga xamante ne tamit mooy bi nga xamante ne mooy bi gën mooy sunu ne bisu eet bi la ko delee fajar ga ba laataa ñuy julli mhm. foo ko ci génne euh, baax na mhm. kon bii dafay doon fadila bii doon boo xamante ne bu gën la mhm. euh, niki noonu nag soo demee xëy na ba ci yenn xalaat yi dan lay wax na la sax bu koor gi dooree rek kooku xalaat la boo mm-hmm. xamante ne mm-hmm. xëy na mm-hmm. euh, bokkul ci yusu yi waaye li wér te wér bu desee ñaari fan foo ko génne baax mën nga ko commencé génne bu desee ñaari fan rek ñu war a mën nga ko commencé génne mais sopp nañ ci nga xëy suba teel ci jour ayit gi nga génne ko en tout cas borom jot ko borom jot ko laataa ayit gi avant ayit gi xam nga léegi am na fu mu yem waaw am na commencement bu ñu jëlee mbokk mi allo salaamaaleykum maaleykum salaam waaw kay na ngeen def fay Bassirou Diop Touba. ah Diop Diop maa maa la woowoon te nga ne waroon émission bi nga dugg na moo tax tey ma njëkk a dugg. tey de yaa njëkk a dugg. waaw maa njëkk a dugg. kañ kañ nga ma woowoon àllarba. àllarba laa woowoon waaw. la ma duggoon nag. ma ne la ajjuma na nga dugg si. waaw. am nga fi saako ceeb. incha allah. ak vingt cinq kilos suukar ak kafe ak tàndarma mais mais uy ma. waaw Bassirou kan moo koy jël si parce que yaa ngi Touba. maa ngi tubaab am na numéro bi sama mag ni ko. <laughs> kon daal da ngay joxe da ngay joxe sa turu mag. waaw waaw. kon da ngay téye ligne bi ci suuf nga joxe ki koy jël si parce que yaa ngi Touba. waaw ma waaye damaa bëggoon wax si man ba baax baax. yal na yàlla na mu siyaar kay. tey ñaan na yàlla Cheikh Sidi Moussa laaj si dara tëjee. amin waay amin amin Diop borom nangul ñu suñu koor amin kay amin amin amin eh, wax dëgg yàlla maanaam li waxtaane moom ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax macha allah alhamdulilah waaw ko defee sakaat ñëpp koy bàyyi xel waaw ñëpp dañ koy bàyyi eh, loo xam ne maanaam fonk lislaam boo xam ne lislaam ko digle kon doomu aadama yi war nañ koy bàyyi xel bu baax incha allah incha allah jërëjëf waaw ñu ñu ngi gërëm bu baax eh, bu baax Basiir da bi am ñu la jël ci suuf jë nga bu rëccee waaw bu rëccee kenn du la ko mën a jox mais nag bii man suukaru korité laa koy tuddee. incha allah suukaru korité ak añu korité ah. waaw téye ligne bi nga wax téye ligne bi nga wax ak ñi ci suuf. incha allah incha jërëjëf Cheikh Bachir jërëjëf ñu ngi ziar waa Touba yëpp incha allah wax yàlla euh, àllarba ba passé la woote woon. Ah, euh, fekk émission bi jeex man ne ko dangay ngay woote àjjuma. Ah. xëy na loolu la confirmé. voilà léegi moor defe naa ni waxtu ixraaj zakatil fitri yi wax nga ko. Hmm. <coughs> dafa am suñ mbokk yu nekk ci Europe. Hmm. xëy na ñun fii boo génnee zakatul fitrit ni ngay teel a gisee koo ko jox xëy na ñoom du ñu gaaw a gis kuñ ko jox doon laaj ci ñi nekk bitum réew ñoom seen zakatul fitri naka lañ koy génnee mais man dama jàpp ne est-ce que ko yónnee fii waaw euh, li am solo hmm. mooy hmm. Euh, na àgg hmm. na àgg te na àgg ci ñi ko war a jot ki nekk bitim réew mën nañ ko koo génneel fii ci réew mi am na ci koo xamante ne yor na ko fa amul kum ko jox mhm. mën nañ ko koo génneel fii day daal di mhm. dagal mhm. waaye bala ñoo jàll sànq ñi ngi woon ci zakatul fitre ma lay wax ne am na fu mu yem génn gi ba fekk imam di taxawal julli gi kon di bëgg nit ki bu mu dépassé julli gi ndaxte nag man adaha qabla salaati fa hiya zakatul wa man wa man addaaha baada salaati. fa hiya zakatun maqbula. aw fa hiya sadaqatun min as-sadaqat. mais nag baada salaati. fa hiya nag sadaqa min as-sadaqat. kon nanu bàyyi xel ne dafa am fu ñu ko war a génnee. ak fu mu yem lu ci nekk dafa am. fu mu yem mhm. bu desee ñaari fan door nga suñu demee nag ba imaam taxawal julli jeex na su weesoo julli gi rek bu boobaa sarax lay doon dootuñ ko tuddee zakatul fitri ko tuddee mais sarax nga daal moo tax ñuy bëgg nit mhm. ki di bàyyi xel di ko génne laataa mhm. ñuy taxawal julli gi macha allah ka nekk fee tamit comme ni ma la waxee mën na yónni fi ñu génneel ko ko ko voilà c'est ça parce que ay question la ñuy posé ci bu ñuy waxtaan ci zakatul fitri ñu fexe waxtaan naale ba xam ñi nekk bitum réew ñoom te war koy génne ci yan sart lañ war a sukkandiku pour génne ko kon am na solo boo gisul koo ko jox foofu mën nga ko envoyé parce que léegi euh, sa mbokk yi nekk fii nga envoyé leen ko comme ça ñoom ñu génnee la ko loolu mun nay nekk bu ñu xoolee miqdaaru zakatul fitri dinañ koy génnee mais ñaata lañ war a génnee am na ku ne moom day xayma li mu war a génnee génnee ko ci xaalis kii ne non am na ku ma woo démb ne ma non génne ko ci xaalis am na ku ne ko boo ko defee baaxul est-ce que dañ koy génne rek ci dugub wala ci ceeb wala xayma ko ci xaalis c'est normal daar bi liñ war a génnee naka la war a toll. jërëjëf tey. Hmm. laaj bu am solo. Hmm. Euh, yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa ne woon nañ ko génnee ci li ëpp ci li ñuy dundee ci réew mi. Hmm. senegal nag dafa mel ne ceeb moo fi ëpp. kon ci lan lañ koy génnee kon ca ceeb lay doon. loolu mooy sunna bi. yonent bi alayhi salaatu wa salaam tamit ba muy wax bi ne nañ ko génnee. ci saa mina shair aw tamr. jamono jooju loolu la waxoon hmm. te mooy nan ko génne ci lu demee ni ki ci pepp ci dugub walla ci tàndarma hmm. léegi nag ñu dem ba ci yàgg euh, ñu gis ne doomu aadama bi dana di soxla xaalis hmm. maanaam ki nga jox lekk dana soxla lu mu ko toggee walla maaw yi am ci ñoo xamante ne danu ne léegi war nañ ko mën a xayma la ngay génne la muy jar ci alal nga jox ko ko loolu am na olama yu ko wax mhm. ba tey xalaat boobu mu la wax am na ñu ne ah dañuy dellu cosaan ba tey te mooy dañ daan toog teg saaku yi di natt di ko joxe ndax lan mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu la wax mhm. waaye pour wax la ni bari na ci dëkk yoo xamante ne dagalal nanu ñu xayma ko ci alal génne ko mhm. bu ko defee nag naka la war a toll yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu naan nan ko génne ca lam waxee ñu génne ko da koo làkk ci arab te mooy saa mhm. saa nag dinoo dem ba jël ko indi ko ci wàllu kilo mhm. indi nañ ko ci wàllu natt mhm. indi nañ ko ci wàllu kilo ñu ne ki nga xamante ne loxoom rëyut ba ëpp tuutiwul ba ëpp mooy loxo bu dugg doom soo ci nattee lu mat ñeent bu boobaa am nga benn bopp ñu jël loolu nag daal ko nattaat mu jox leen ñaari kilo mhm. léeg-léeg am ñu ne la ñaari kilo yu manqué am ñu ne la mu teg tuuti mhm. waaye foofu leen fa bëgg a wax daal mooy bopp bu ne mhm. soo ko génnee les deux kilos bu boobaa baax na kon ñaari kilo la ñuy génneel bopp bu ne te mooy nit ku est que man léegi sama loxo bi hmm. sa loxo baax na parce que rëyul ba tuuti ban koy coow encore voilà c'est ça ban naan loxo waaja voilà mais tuutiwul ban koy hmm. coow tuuti bi ak rëy gi xam nga lu ñu ci jub bu mu rëy ban koy waxtaane mais bu mu ndaw ba mu ëpp itam. waaw bu ñu jëlee mbokk mi salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw cheikh bi. waaw ah, ñu ngi ziar suñu tey. ñu ngi dellu ziar ñëpp kay. alhamdulilah ñu ngi rafetlu émission bi lool. ah kay ah kay ah kay. waaw uh-huh, uh-huh. ah, man damaa ngi woote Taïf waaye dama la tur. fan ngay wootee. Taïf waaye dama la tur Taïf. Taïf. waaw. Taïf. Taïf dëkk Ndax Soxna. ah Taïf waa nga dëgg waa Taïf ñu ngi ziar ñu ngi ziar. waaw euh, ñu doon seetlu bu baax te jaaxle benn boobu waxtaan bi waxtaan bi moom def na lool. waaw nga wax dëgg. Mhm, mhm. waaw moom daal euh, moom daal moom mënuñ ko ni nga ko waxee moom moom ci ci financement am na ko da ko war a jox financement moom amul ko tuut moom ci dañ ko ko war a jox moom. Mhm, waaw ñun daal ñoo rafetlu waxtaan bi daal moom xam naa lu ñu ko xam ne daal loolu daal moom rafetlu nañ ko lool. kay ah kay macha allah alhamdulilah. waaw waaw ah, jërëjëf jërëjëf sax bi jërëjëf jërëjëf jërëjëf mbokk mi ñu koy gërëm. kon defe naa ne euh, suñu invité bu ñu fàtte ne mu ngi tudd professeur Pape Mor Diakhaté mm-hmm. euh, tey moo ñëw pour faram-fàcceel li nga xam ne mooy zakatul fitri parce que ñëw nañ ci waxtum mm-hmm. te ñu bari encore dañu koy faral di laajte ki ko war a jël ki ko war a joxe ki ko amul ndax da ndax dañ ko forcer pour mu jox ko wax na ne <coughs> ki ko amul <coughs> kooku bokk na ci ñu ko war a jël naka noonu ñaata lañ koy joxe def na ne ne ñaari kilo moom laa la waxoon sama loxo bi xëy na guddul ba ëpp waaye mm-hmm. rëyul ba tuutiwul lool comme sa loxo bi xam nga léegi léegi lii bu ma ci tubee ñeent est-ce que loolu mat na ñaari kilo voilà man na ko non non du non non du mat dana ko mat soo ci boo ñeent fu ma ci tibee ñeent te kon ñaari ma war na mat kilo boo defee nii benn mm. yoon mm. sotti ñaari yoon sotti ba man ñeent yoon mm-hmm. soo demee nga xool ko day mat deux kilo macha allah waaw mm-hmm. kon su ko defee loolu moom la ñuy génnee. ci mu nekk zakatul fitri. waaye léegi xam nga mm. loolu. Mm. dine ci xeetu nattukaay yi la comme que léegi peese am na. Mm-hmm. bu boobaa dootoo jëlati sa loxo. Ah, ba ba ñuy jëf saa. saa waaw léegi nag fi mu ne jël ay kilo moo am. da ngay jël léegi peese bi rek. deux kilos ba léegi am na gis naa mag ñoo xam ne saa ba lañ jël ca mag waaw am na moom lañ koy natt nga xamante ne. moom kilo euh, am na mais saabu ba léegi ca Makka net natt nañ ko ut ko natteekaay ñoom ba léegi fii ci Sénégal gis naa ñu ko fi yor mhm. di ci natt mburum koor am na ba tey léegi bu ñu ko jëlee man tudd fa zakatul fitri comme ni nga ko waxee woon mhm. wax nga ñu waxtu wiñ koy génnee mhm. leer na bu matee deux jours mën nga ko génnee mais liñ gën a sopp mooy fajaru bésu korité bi ba keroog imam di taxaw ci min euh, barba Euh, ki koy jot jot ko xel ma dal mu mën a julli xam ne tey du bisu yalwaan. dëgg la déjà pour ñëpp mën a sentir ne tey ñu ngi ci fête. Mm, waa am na koo xamante ne. Mm. Euh, buy yalwaan am na loo xam ne bu dajeeg moom day daal di dëpp. Mm-hmm. nga ki nga xamante ne bu daan yalwaan bis bi day yaakaar ne su demee ba wàcc su wàccee xëy na la muy am du weer weesu junni. Mm-hmm. am ko ko romb jox ko juróomi junni. Mhm. ñaare danaan naa ñibbi. moo gën coono bi de wax ah, de. <laughs> ma goog mhm. léegi eh, ñan lañ ko war a jox. Mhm. lu am solo. ñan lañ ko war a jox ndaxte nag génne nga ko mais li fekk joxoo ko ñan ko war a jox. yegg ba tey amagoo zakatul fitr ñan lañ ko war a jox léegi. bon léegi dinne din koy jox ñi nga xamante ne ñooy faqiir yi ak miskin yi. am na nag lenn ci ulama yi ñu ni déedéet nanu ko jox rek. ña quraan waxoon ne ñoom la ñu war a jox azaka mm-hmm. te muy juróom ñetti xeet innama sadaqaatu lil fuqaraai mm-hmm. wal masakini mm-hmm. wal aamilina alayha boobu wal muallafati qulubuhum wa fi riqaabi wal gaarimina wa fi sabilillahi wabni sabil faridatan min min allahi wallahu alimul ñu ne kon nañ ko jox juróom ñetti ñooñu allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si na def. maa ngi fi sawa sawa nga tudd. Ndumbelo. man naka laa tudd. suñu <laughs> mbay la <laughs> fekk waxoon ni ma tudd fekk waxoon na ma tudd yow même même yow kenn du la jox zakatul fi zakat. Abdoulaye Mbaye la Abdoulaye Mbaye. ah waaw ah, toogal foofu. waay defarul ba noppi wax ma nu ma tudd. Ah, wax ma nu ma tudd. allo moom dafa teeyul man man man may Abdou wala boo mu jaawalee te man du ma Abdou Aziz <laughs> soo wootee fekk waxoo ma sama tur kenn du la ko jox eh, voilà c'est ça defe naa ne loolu eh, eh, maanaam kon léegi euh, malheureusement bi dafa dagg voilà euh, mhm. kon te euh, oustaz hmm. am na ñu ne nanu jël rek hmm. juróom-ñetti xeet ñooñu yàlla waxoon ci Qur'an hmm. te mooy faqir bi wala miskin bi mais lu tax xam nga ñun fii au Sénégal wala boog ci déggin bi miskin ak faqir dafa mel ni baat bi nu boo ko dégloo miskin bi moo gën a war a mën a fatigué mais lu tax yàlla njëkkewut ki ñu jàpp ne moo war a njëkk a fatigué ndax te innama sadaqatu lil fuqara doog teg wal masakin waa lu tax mu njëkkee faqir euh, loolu nag li tax mu njëkkee ko ñaare di naan yàlla li mu njëkkee rek loolu mooy la ëpp solo mhm. xam nga boo demee ci ngiir yi sax soo demee ci ngiiru Maalik yi nga jóge fa nga dem ci euh, ngiiru Abu Hanifa mhm. ñoom danu ki nga xamante ne mooy euh, miskin ci boppam moo gën a tar mhm. coono mais boo demee ci Shafii ak ngiiru xanaa bi la dina ko déedéet faqiir ci boppam moo gën a tar mhm. ku ci nekk indi sa dalil mhm. soo demee ci ngiiru Shafii ak xanaa bi la ñoom danu ne fakiir ci boppam am na ci lu mu euh, kii dinne miskin ci boppam am na ci lu mu jàpp fakiir a gën a tar ñu ni xoolal diggante Moussa ak Xodar ba nu àndee xodaar di jëf Moussa dem ba ci yàgg mënatu koo muñ moo koy expliquer lu ci nekk li tax mu def ko hmm. xam nga xodaar bënoon na gaal ga innama safinatu yaa ngi dégg hmm. fa kaanat li masaakiini li masaakiina yaamaluuna fil bahri hmm. nag ñoom ñu xam nga ne dina gaal gi Moussa euh, bi xodaar di expliquer Moussa yim doon jëf da ko ne gaal gi day dafa amoon ay miskin yoo xamante ne ñoo ko moomoon doon liggéey ci biir géej gi mm-hmm. kon loolu li muy wane ne miskin ci boppam ma ngay liggéey mm. kon fakiir moo gën a tar miskin mm-hmm. yàlla tamit moom la jiital kii am na mais la mu am doyul kii nag moom jóg sax liggéey wala xëy na am na laago wala mënuta def li naan kas ba mm-hmm. kon am na ñu ne ñaar ñooñu dong faqiir ak miskin ñoom rek duñ leen génn ñoom la ñuy jox lii ñu naan murum koor ñoom la ñuy génne murum mooy li gën a siiw mm-hmm. kon boog murum koor bi boo ko génnee da koy jox ki ko aajowoo mm-hmm. ki ko aajowoo mooy ki nga xamante ne la mu yor doyu ko mais est-ce que ki koy joxee dina dagan mm-hmm. mu génnee ko dem jox ko imam imam bi ci jàkke ji ndax imam xëy na moom ñu bëri dana dagan euh, ci kaw mm. imam ci boppam xam nga moom day xam ña ko aajowoo ñu bari xam nga di am solo mooy mm. na dem ca ña ko aajoo mhm. su dee danga ko jox nit koo xamante ne jàpp nga ne moom xam na ña ko aajoo jox ko ko dagan na moom mu séddale ko moom mu séddale ko mhm. ak tamit yow nga xam nit boo gisee nit ki ne yow na ko mën nga ko jox bu mën nga ko jox directement mhm. kon loolu am na solo kon dama yaakaar ne euh, zakatul fitre ngoog mbokk yi dafa yaakaar euh, il faut bu koor gi jeexee ki ko yàlla baaxee mu fexe génne ko génne bi wax nañ la xikma bi ci yàlla jublu ki doon yalwaan war a ñëw taxaw sa buntu kër naan la damay yalwaan wala saraka reer yaay wala saraka añ yaay nga génnee ca la nga desal yow gannaaw boo amee sa dépense njaboot ba noppi ca la ca des nga génnee ko nga jox ki ki nga xam ne moom it mu am dépense njabootam pour ñu wane ne vraiment jullit ñëpp tey ñu ngi feet tey kenn amul problème dina rafet lool ci démocratie maanaam démocratie wala solidarité wala ci wàllu bennoo yooyu yëpp dafay faral di feeñ ci biir l'islam ci jullit ñi ñaareel bi mooy yow nit mato am na loo waroon a wax rëcc rëcc ci sa làmmiñ te loolu dangaa woor wala nga def rëcc rëcc ci sa jëf te da ngaa woor loolu waroon na tilimal sa koor googu nga génne zakatul fitri dafay nettoyé loolu ba nga xam ne lii lu set la kon loolu wax dëgg yàlla am na yaakaar ne ku ko yàlla may loo mën nga koy def dafay am benn xadis allo salaamaaleykum. salaamaaleykum. salaam waaw. waaw kay. maa ngi leen di delloo ziar. yal na yàlla def jàmm ci yow mi. amiin amiin amiin amiin. nga yéene sa doomu aadama ji. Mm-hmm. man dama feebar waaye yéen tax ngeen maa jóg fi ma nekk nii. alhamdulilah. Mm-hmm. ci barke Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. li ngeen di def yal na leen ko yàlla fay. amiin Adja amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin. ñu fekkee ko di ko teewal. amiin amiin amiin ay at i at. amiin amiin ci daraja Nabi Mustafa. amiin amiin amiin amiin amiin. allo. waaw maa ngi lay déglu Adja nag nga tudd. Ramatulaay Ndub sama kii. Ramatulaay. Ndour Samkeej. fan nga dëkk. Samkeej ci biir njas ci biir Ndiass. xanaa li mu xaw a sori rek ajaa ni kon ñu jox la ci xéwal yi. yaa ngi may wax ne ma yaa ngi may wax ne ma da xaw a tawat. waaw yi doon na ci baax de ah. wallaay ah boo ñu joxee rek koo xam ne mën la koy jëlee rek ñu jox la ko de. Ah, fu mu nekk. mu nu mu tudd. Jibril Ngor. da di Jibril. Jibril Ngom. waaw. Jibril Ngom Pikine. léegi suñ fi jógee. waaw ah. da ngay wax Jibril mu ñëw jël si jël si la ko. bu ko neexee bu suba mu ñëw. Euh, ma xool suba la lan suba la samedi. samedi waaw euh, que gars yi dinañ liggéey samedi fii. sinon mu ñëw lundi. lundi. waaw bu soobee yàlla Jibril Ngom. dangay joxe turam bu ñëwee. mu laajte madame Sarr. madame mu wax ne dama gañe woon ca Oustaz Tayib Socé. sama yaay gañe woon. jël leen tur bi gaalaa jël leen tur bi comme ça ngeen toppatoo ko pour ngeen mën koy jox parce que kii dafa tawat yaakaar ne moom itam su ko defee bu jëlee suukaru suukaru korité wala suukaru sax ba ca gannaaw korité yaakaar naa loolu dina ko mun jàppale ci tawat boobu nga xam ne moom la tawat ah Mor dëgg yaakaar naa loolu la voilà mu ngoog kon su ko defee ñu ngi doon waxtaan ci ci loolu wàllu zakatul yi ki ñu ko war a jox ak ki ko war a jël ak itam nombre bi naka la toll euh, ñaari kilo wax nga ko euh, su su ëppee du wàññeeku wala kilo ak liibar ah ça dépend ki ko am ki ko am joxe ko ki ko ki ko amut kooku wàcc na ko dafa am hadis boo xam ne dañuy wax ne euh, ñu bëri dañ ne hadis boobu mënuñuy wax ne hadis bu hadis bu parce que farata su na mënul ñëw daji farata hmm. weeru koor dañ koy aj ci diggante asamaan ak suuf hmm. fee génne wala zakatul fitri du yéeg du continuer loolu gars yi dañ ko dajji wane ne weeru koor farata la te zakatul fitri sunna la dëgg la loolu ma yaakaar ne sunna gi euh, bu naree ñëw dajji farata gi uh-huh, mor loolooy li am ndaxte uh-huh. danañ koy faral di dégg uh-huh. di wane ne muurum koor bi li fekk génnewoo ko sa koor gi ñangi ko aj ah, maanaam mu ngi mel ne du am sens du am njëriñ wala maa yu bari nag wax nañ ne xaddis boobu ci boppam euh, doonul xaddis bu wér comme ni nga ko waxee ndaxte koor gi farata la moo ëpp doole zakatul fitri li nga xamante zakatul fitri mhm, mhm. ba tax na daal li am solo mooy ki ko mën na ko def mhm. ki ko mënul defu ko na fekk ne da ko mënul li bon kay mooy mën ko te bañ ko def macha allah waaw loolu am na solo trop euh, professeur loolu am na solo léegi bu ñu ñëwee ci zakatul fitri bi ba nga xam ne wax dëgg yàlla leer na am naa yaakaar ne leer na léegi ñu ñëw ci aydul fitri xam nga bale zakatul fitri tudd bii ñëw tudd eidul fitri lan mooy eidul fitri euh, eidul moom mooy euh, korite mooy feet gi mooy julli gi xam nga baatu iid euh, boo demee danu naan li tax ñu tuddee ko eidul fitri min aada li muy dellu si di ñëw ay yooni yoon moo tax ñu tuddee ko iid min aada am ñu ne mbégte gi li muy dem di ñëw mhm. ñu tuddee ko iid kon luy dellusi la di ñëw mais iidul fitre euh, ci gàttal nan ko tuddee rek korité nañ ko nan nañ ko jàppee li nga xamante ne mooy julli gi mooy feetu korité mhm. kon daal iid mu ngi bàyyi ko ci aada yaudu mangoog awdan mhm. li muy dem di dikk moo aada yaudu awdan di muy dem di ñëw chaque année mu ñëw iid aada yaudu awdan iidul fitri léegi bu ñu xoolee iidul fitri ñu ne mooy julli korité moom itam waxtu salaatul iid xam nga damay gis dafa am différence euh, julli korité heure bi ak heure julli tabaski dafa am différence dama gis na tabaski moom day teel lool lool mais it dafa am tuuti lan mooy lan mooy farq bi ci diggante bii di teel bii moom di xaw naaj ak waxtu wi waaw li ko waral mooy euh, hmm. xam nga boo ko seetloo ay hmm. iidul adha mooy julli gi nga xamante ne da ngay rey muy tabaski warte fii dafa bari hmm. ba tax na din ko war a gaawal xam nga ni nit ki bu fekkee julli na ba pare ba dellu këram mhm. war na rey xaram mhm. war a préparer ñu ne kooku nag comme que jëf yooyu mu ngi koy xaar kon nag kooku na teel mhm. bële nag comme que ay jëf amaatu ca lu dul la ca am comme jëf nee na la moom it te mooy na nga teel a dog te nanu wala bokk na ci li nu mooy nga dogee ci tàndarma soo ko amee du force nag mais sunna la mooy korite gi moom teelal a la dog ba xam ne génn nga ci koor gi ci journée ba ci bis maanaam teel la ndékki nga bëgg a wax teel la ndékki merci beaucoup ba nu xam ne yow <laughs> éliminé nga voilà mooy teel la wane ne woroo wane ne woroo mm-hmm. mm-hmm. ñu sunaal nga dogee ci tàndarma mm-hmm. ñu sunaal it la ngay dogee mu tóol tàndarma bu tóol nag mooy ñett tóol na juróom xam nga ne tóol na maanaam pour nga ndékkee ko pour nga njëkkee ko dugal si gémmiñ dogee ko boo paree nag mhm. nga soog a ndékki comme nii rek dafa am ku lay ku lay déglu ko mun gëm moom xëy mhm. suba te lekk ñett doomu taal ma yem ci sunna la nag moom la mu préparé mhm. mooy ndékki lu rëy moom waaw parce que warul mais bu ko lekkee ba pare day dem merci beaucoup voilà <laughs> su ko lekkee ba <laughs> pare kooku dogee la rek mu njëkk a dogee kooram xam nga ah. lu mat weer yaa ngi wooroon gis nga mm-hmm. ngoon bu jotee bu nuy ndogo di nuy ndogoo tàndarma mm-hmm, mm-hmm. mais nag tàndarma ba doo fayam dogee la rek moom it da koy dogee sa leer ndax na yoo xam ne ñoom uh-huh. question boobu su ma ko laajut ñoom laaj nañ ko fa ñu toll ñoom dëgg la dëgg la kon bu ñu jëlee mbokk mi allo salaamaaleykum waaw Adja ça va bien ça alhamdulilah waa jàmm rek kay ah, kontaan waaw waaw waxal bu baax ma dégg. man ñu leen di gërëm di leen ziar di ñaanal. incha amin amin ñun ñëpp waay. waaw yéen a ngi ci jàmm. jàmm rek alhamdulilah. ah, ah fan ngay woote maa ngi wootee Kër Massar. ah Kër Massar naka nga tudd. Kiné Diaw. Kiné Diaw Diaw ana waa Kër Massar ñëpp a ci jàmm. Ah, sant yàlla alhamdulilah jàmm rek alhamdulilah. jërëjëf jërëjëf ki ne ki ne ki ne voilà ki ne jaww ñu ngi koy gërëm di gërëm itam waa Kër Massar kon Mor waxtu salaatul iid wax goo ko mooy waxtu woowu bii ci tabaski dafa am liggéey bu lay xaar ci kër gi ndax soo jullee da ngay ñëw rey xar te rey xar ak defar moo tax dafa doon lu xaw a yàgg kon day teel suba teel bii nag nga xam ne moom xëy na defuloo dara dinañ bàyyi ni ñu jël seen temps neuf heures et demi jëm ba dix heures dina nekk waxtu woo xam ne waxtu bu baax la léegi mustahabatu yawmil iid li nga xam ne dañ ko ci sopp dafa mel ni bari na. ci fête waaw euh, ci fête gi. Hmm. liñ ci sopp li ci gën a fës ci sunu réew. nga xam ne jamono ji yëpp moom lay nit ñi di itteewoo. Hmm. mooy sol lu rafet. Hmm. sol lu bees. loolu ñuy def nag ci feet gi nanu xam ne sunna la. sunna la mooy lu nu sopp la mooy nii nga xamante ni heure bi boo demee ku nekk ma ngay xotti dan ne daal solal li nga gën a fonk ci sa yére yi taamu nan ko niki noonu tamit ci bis bi sopp nañu tamit sangu nga sangu ci sangu farata euh, sopp nañu tamit euh, ci bis bi su fekkee ne yaa ngay dem di julli ji yoon wa nga jaare woon ba ngay dem ak bi ngay dëpp mu juwoo xaw tuuti politique la parce que mhm. lañ ci jublu mooy suñu gisee jullit ñi ñu jaar fi ñu dellu gisaa leen feneen ñu jaar fa loolu bariwaay bi lañ ci jub maanaam loolu sunna la bu ñuy bamtu mais xëy na léegi la taxoon yonent bi doon ko def est-ce que mhm. léegi loolu waaw la taxoon mu ko doon def daal moo doon wane euh, bariwaay ci jamono jooju ci jamono jooju teewul nag ba tey xam nga mm. sunna mm. Euh, ku ko mën rek da nga koy def ba tey man li ñu tuddee baaxental daal baaxental mag mag bàyyi woon na ko fi mag ñi bàyyi woon ko fi da nga koy def ba tey mm-hmm. xëy mm-hmm. sangu diwoo eau de cologne mm-hmm. yooyu yëpp surtout euh, yooyu yëpp dafa bokk ci yi nga xamante ne foog mhm. euh, sopp nañ ko ci bis bi mhm. di tudd yàlla mhm. takbiraat yi allahu akbar ba fekk imam di taxawal alhamdu yooyu yëpp tamit ay mbir la yoo xamante ne sopp nañ ko ci julli it bi nee nan sax takki biiraat bi sopp nan ko boo ko mënee door sax ca fajar ga ba fekk imam di taxawal mhm. nga soog a arrêté te tudd yàlla la te mhm. tudd yàlla xam nga tuyaaba gi salaatul eid fii ci Sénégal liñ ci gën a tàmm mooy xale yu góor yi góor ñi ak jigéen ñi ak mhm. màgget ñi mais dama yaakaar ne jigéen ñi ne ci seen kër yi wala yeneen xale yu góor yi jigéen ñi nga xam ne ñoom toujours mat na 18 ans du ñuy gis ne faral dinañ faral di tànn tàmm di dem ci julli yi daal dañ koy bàyyee góor ñi ak magget yi ma yaakaar digle woon na sax ñi nga xamante ne mënuñoo julli nanu dem. maanaam ñi setul ñi setul sax nañ dem nanu dem ñu toog ngir déglu xutba. macha mhm. kon foofu pour wax la ne. Mhm. Euh, njariñ la fa nekk. Mhm. du na julli gi mais xutba ba nga xamante ne moom lay imaam bi di def. nee nanu tamit taamu nanu ci imam bi su fekkee ne mi ngi xutba mu am lu mu jagleel jigéen ñi mhm. xëy na loolu duñ koy faral sax di gis waaye nag ci sunna mhm. la taxoon ñoom ñu ñëw teew da nga leen cay boole nañ ciy gis seen bopp wax leen seen diine mhm. wax leen lu aju ci seen biir kon julli googu ku mag ki ndaw mi ñëpp ba ci ki nga xamante ne dafa gis mbaax yonent bi dafa sunnaal ñu ñëw. ñu daal di toog même ñi tënj. ñi tënd ñu ñëw sapp na ñëpp dem. ñëw déglu xutba macha allah xam nga loolu dafa gis dama ko gis yonent bi jàngale ko. te mm. fii boo waxee ñu ne bon màgget ñi daal la ñuy bàyyi ñuy julli ji ak góor ñi waaye jigéen ñi ñoom faru ñuy faral di dem te jigéen ji gis baax. jigéen ji tënj ñëpp dañoo war a génn pour ñu dem parce que yow yowmul jaza lañ ko tuddee. Mm-hmm. mooy bés bi yàlla fay jàmm ñi. bés bi yàlla fay jàmm ñi ak màggaayu bés boobu bu ko kenn xañ sa bopp. dëgg bàyyil sa kër nga dem julli diggante julli yàggul imam yi itam yaa cheikh ci seen julli yi temps ndax nit ñi euh, xutba yu guddi yi ak julli yu yàgg yi euh, yooyu tamit euh, laaj nga laaj bu am solo mm-hmm. xam nga nit ki su fekkee ne dafa julli ba pare mm-hmm. war a xaar xutba bi pour jël yool bi mm-hmm. yow mii xutba war nga bàyyi xel ne borom itte ma nga fa comme ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxe woon ci wàllu julli julli gi bàyyi leen xel ne am na borom aajo am na ku feebar ku nekk ca ginnaaw am na ku boot doomam mu yooxu ci ginnaaw yëpp ma nga ca mhm. noonu nga xamante ne na la ko yonent bi waxee ne la bàyyil xel ñooñu mhm. ba ngay xutba tamit guddaay gi amul solo ndaxte guddaay gi mhm. li tax amul solo yaa ngi leen di waar ngir ñu jariñu dañuy mujj jóg di dem. Mhm. merci beaucoup. ñu dem ba nit ñi bala. Mhm. ak nga bàyyi leen. Mhm. xam nga bokkul da ngay dem ba ci yàgg nag nga gis nag ñuy rocceeku. ñuy rocceeku yi dem parce que toogaay ba ëpp na. loolu it war nañ ko bàyyi xel lu am solo. da nga koy gis ci jàkka yu bari pour mën a toog. imam bi xutba ñi ñoom jóg di dem. na doon ba boo xamante ne. bu gàtt lay doon te matale. maa xalla wa dalla maa wa wax moom loolu mooy la ci ëpp mhm, solo mhm, mhm. na gàtt mais na am njariñ mais topp xutba bi di dem ngay gis gars yi di dem di rocceeku njëriñ am nañ ca droit nag am nañ ca am nañ ca parce que benn euh, ñu teewe ko dafa doon sunna su baax mais nag bu buñ demee bay loru nag ba toogaay ba dem dañuy dem du yàq dara ci seen kon yow miy jàngale yow yaa war a xam heure bi na gàtt. Mhm. wax nga wax ju am mhm, solo loolu gis naa ne ñu. bari koy seetlu ci place su julleekaay yi imam bu ñëw taxaw di xutba rek di xutba rek di wax rek di wax rek ba nit ñi mujj ki dañuy wëlbati ko jóg di dem nit ña nga doon waxal bu ñu demee ba bu ñu demee ba tàyyi ci ngay wax waaw loolu baaxul. baaxul eh, te te loolu du sunna ma yaakaar ne loolu imam yi war nañ ci bàyyi seen xel allo salaamaaleykum. iqra bis. allo. allo. waaw allo. waaw kay cheikh bi. waaw man la France laay wootee donc euh, dama doon rafetlu émission bi. ah kay waaw waaw waaw waaw. parce que nit nga ko dëgg yàlla tala dibi koor gi bu nekkee di la di waxtaan ak yow di la wax ci yàlla ak yonent koor. Mhm. ba koor gi di waajee jeex wan nga ngërëm ko ngërëm. incha allah. Mhm, mhm. donc donc maa ngi koy rafetlu te tamit émission bi lu mu ci gën a neex maanaam yow sa sa waar day leer. Mhm. day neex ñu di si dégg di si amee xam-xam day neex trop trop trop loolu daf ma neex ci ci waa. alhamdulilah muy wax muy dégg bu baax li mu bëgg wax lan la. Mhm, mhm, voilà loolu ñu koy tolloon ma cee neex lool te fii ñu toog tamit di ko seetaan. waaw yenn saa di wax suñu xol faf yomb di poser une question boobu day mel ni da ngay xam li nekk si macha allah alhamdulilah waaw kay waaw kay. moom daal moo tax ba dina rafetlu émission bi tamit di kontaan tamit. jërëjëf di la di la gërëm ak euh, voilà di la. kontaan nañ Cheikh bi nag nga tudd. man Ndeye Mbaye laa laa lekk. mais kontaan nañ lool yal na yàlla nangu yëpp ay Cheikh bi. allahumma amiin allah. jërëjëf mbay Mbaye merci beaucoup jërëjëf jërëjëf. jërëjëf mbokk moomu ñu koy ñu koy gërëm Mor voilà c'est ça. gis nga dafa mel ni kii. yi ñuy def seen xel. li ñuy soxla moom laay laaj waa parce que itam loolu lañ soxla ñun parce que loolu loolu loolu mooy waxtaan ndax am na koo xam ne bëggu na la laaj bëggu na la jotu la. kon ñun il faut ñu fexe ba xam nit ñi. ya ya ñuy posé su ko defee ñu jël ko ñëw posé la ko ndax ñun ñun ñoo fi nekkal nit ñi. dëgg la yow yaay àtte mais man nit ñi laa fi nekkal. waaw su ko def parce que loolu question la boo xam ne ñëpp ñoo koy posé ma wax. Mhm. imam bi xutba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni sooy jullil sa bopp sa bopp te jullil téeméeri rakaa jàngal saar ya gën a kowe ndax yow kenn la yaa xam sa bopp mais booy jiite nit ñi moomatoo sa bopp am na koo xam ne mu ngi yàkkamti nit nit matul nit day soxla boppam kii soxla na tuur ndox kii soxla nangam te daf lay dab ci julli gi mhm. te munu ma dagg julli gi moo tax tënkal am na ko feebar koo xam ne taxawaay bu yàgg bi munu ko même buy toog toogaay bu yàgg bi munu ko am na ko ñëw indi doomam boot ko mhm. daf ko boot xale bi nangam sox na boppam kon bu nit ñi nekkee ci sa gannaaw moomatoo sa bopp dëgg da ngay sóoraale nit ñi nga xam ne ñoo nekk ci sa gannaaw nga julli julli gu gàtt li nit ñuy dem sooy julli yow kenn nag bu la neexee fanaan la julli bu bar set loolu ci boppam mooy diina mais toog téye xutba bi rek ni ci xutba wax ba nit ñi fàtte nga waxoon julli gi nga téye leen fa encore naaj bi tàng nit ñi xamoon yàkkamti dem seen kër yi loolu nag du sunna wax dëgg yàlla kon imam bi war nay xam li sunna bu julli jotee moo di ko appliquer waaye nit ñi waruñuy toog ba xam ne imam bi li muy def nekkul sunna loolu baaxul ci en tant que moo tax vraiment Euh, question yooyu dañ koy dal di posé indi nga mustahaabaat yawmil iid am na solo nga sol lu bees soo ko amee soo amul lu bees nga sol lu set fóot ba mu nga paase sol ci sunna la amuloo ko boo amee lu bees nga sol lu bees rafet na nga laal parfum sangu sangul farata laal parfum bu neex ndax nit ñi ngay fréquenté wu nga xeñ leen xet gu neex dafa am solo waaye ñëw ci mbooloo ba pare vraiment di leen déranger loolu du yëfu jullit dëgg yonent bi parfum rek la la daan laal kon laal ci parfum boo demee makkatal mu karam ndeysaan euh, da ngay gis même boo fi ngay jullee même boo laalul parfum dinañ la sotti parfum ba nga tooy <laughs> xep xep ndax ku ne day génne parfum di la laal kii laal kii ñëpp ay julleekaay bi day xeeñ parce que da ngay gis ne vraiment fii ñu ngi appliqué sunna boo xam ne vraiment nii rek la demee kon loolu bokk na ci euh, bokk na ci sifatu salaatil iid yi defe naa loon formule bi formule bi maanaam naka la ñuy jullee iid waaw euh, jullee iid mm. ñaari rakka la ñaari rakka la mm, mm. rakka bu njëkk bi dangay def juróom-ñaari kàbbar kàbbarul armal bi ci la bokk mm. kàbbaru armal nag buñ ko waxee mooy kàbbar bi ngay ubbee xam nga moom farata bu njëkk bi ba ci julli yi heure boo ko bàyyee su julli yàqu na binal mm-hmm. faraid kàbbaru armal bi ci la bokk juróom-ñaar ñaareerul rakk bi moom it ginnaaw takbiratul ihram moom dangay def kàbbaru jógaale bi mm-hmm. ak kàbbar bi bii juróom la ak benn bi muy juróom benn mm-hmm. kon juróom ñaari kàbbar rakk bu njëkk bi mm-hmm. kàbbaru armal ca la bokk juróom benn kàbbar kàbbaru jógaale ba ca la bokk kon noonu la su ko defee nga tari fatiha ak saar taamu nañ ci nag bu fekkee ne mën nga tari euh, lu demee ni ki sabisma rabbikal ala ak hal attaka Euh, moom it euh, taamu nañ ko sunna la mhm. du rek force la foog nga def ko mais boo ko mënee moom mooy li gën mooy sunna bi mhm. kon noonu lay loolu am na solo ligi di bindoo mhm. léegi ki nga xam ne ñu ma damaa gis léeg-léeg ñu mujjee njëkkee julli gi mujjee xutba bi wala mujjee xutba njëkkee julli loolu loolu lu ju doon euh, toujours nag julli gi mooy jiitu xutba bi moo ci soog a tegu waaw même yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci sunnaag yëpp mooy xutba moom mooy. pourtant julli moom dañuy xutba du ko julli. waaw. waaw mais mais moom. waaw xam nga ayit ci boppam. bu jëlee mbokk mi allo allo. maaleykum ah, salaam waaleykum ah, ngi fi rek alhamdulilah. sant yàlla rek. alhamdulilah. alhamdulilah. Uh-huh. ci xéewal hmm, Xadi Mbay. waaw. Xadi Mbay fan ngay woote. Hmm. allo <coughs> mënoon ngeen may bàyyi ak Xadi Mbay tuuti <coughs> sinon dinañ la jël ci suuf Xadi Mbay jox la ci xéwal yi moom daf na ci xéwal yi directement la bëgg. Ah, waaw waaw loolu de moom. <laughs> wax na fu la am na fu la. <laughs> Eh, loolu kon jël leen Xadi Mbay jox ko ci xéwal yi xam nga léegi euh, oustaz tey boo seetloo. Mm. julli mm. Mm. aljuma. waaw kay ñu xutba ba pare soog a julli. Mm-hmm. kooku foog nga julli. doo mën a rocceeku. Mm-hmm. waaye sànq li nga doon waxtaane nii. heure buñ jullee ba pare ñu nekk di xutba hmm. bu la fa naree téye da ngay bu dem sa <laughs> waaw <laughs> bëggoog waaw kay du hmm. a dem macha allah am na solo eh, gis nga lu lu rek am na lu tax am lu tax mu def ko hmm. eh, julli juma ñi xutba waaw du ko bi ngay jamono koo xamante ne sax mën na tardé ci xutba bi toog ba julli gi jege ci julli juma mu soog a ñëw julli kooku moom julli ga xam nga moom mooy mbir mi xam nga loolu moom mooy mbir mi mm-hmm. nga gis na que julli iid ci boppam dañuy julli ba pare soog a xutba mm-hmm. xutba boobu ci boppam heure bu la neexee yeewee ko mm-hmm. te bee nag bale sañoo dem parce que da cee bokk loolu la non macha allah kon daal l'essentiel li may conseiller imam yi ak ku munta doon kuy jiite nit ñi nanu gàttal nga gàttal loolu daal mooy sunna bu dee yow kenn nag bu la neexee fal yu tawil macha allah xanaa bi wax na ko kuy julli nit ñi na nga gàttal la rasulullahi wax kuy jiite yow kenn na nga guddal lu la neex ma yaakaar nag loolu appel yi ko wax dëgg yàlla mooy sunna mais toog boo daal di xóot ba nit ñi bàyyi la fa di dem loolu itam rafetul wax boo demee ba ñu nga doon waxal déglootuñ la baaxul sax dafay wàcce sa xiima defe naa amul solo dëgg la eh, kilifa day fexe kàddum ñam koy waxal ñu fonk di ko déglu mais bu en tant que imam dem ba say wax ñu ngay jiite faaleetuñ la dem dem loolu baaxul ci imam loolu na ko ñëpp bàyyi xel yonent bi jàngalewut loolu am na fawatal ayit dama ñëwoon di julli si ci julli ayit gi mais damaa tardé mm. ma ñëw fekk ñu sëlmal léegi man nan lay def dama koy fay wala damay lem samay sajaada dem ñibbi wala bu fekkee groupe lañ dañuy créer imam mu def ba juuti normal wala daal imam ratib bi moom bu fekkee tardé nga sa diggante ak moom ak julli gi da ngay ñëw julli ñaar rakk wala jaratu ko wala da ngeen di créer groupe waaw euh, julli it moom boo ñëwee fekk euh, ñu julli ba sëlmal hmm. yow da jóg rek julli comme ni ñuy jullee it gi comme na ma la ko waxee woon hmm. jóg commencé say kàbbar ñaar rakk ñaar rakk comme ni ñu koy defee mm. soxlaatoo sax beneen imaam mm. soxlaatoo di ànd ak ñoom mm. bu fekkee ne tam da nga ñëw ci julli gi nga fekke benn rakka beneen rakka ba ca desit xam nga da koy mottali mm-hmm. te yaa ngi koy mottalee comme na ko imaam doon jullee mm-hmm. léegi nag euh, mu des ñu leeral te ñu bari duñ ko dul bàyyi xel mooy fan ngay amee rakka ci julli mm-hmm. léeg-léeg nga gis koo xamante ne dafay ñëw ci julli gi mu wóor la ne kii nii euh, amu ci dara amu ci dara mooy ruqoo raw na ko waaye da gis gis na fi nga toog day jóg mel na luy jéem a fayaat mhm, rakka mhm. nanu xam le ne rakka ci boppam soo ñëwee fekk ñu téye ko foofu ñëw ci téléphone bi allo allo waaw salaamaaleykum waaleykum ah, waaw waaw man de gis naa sa émission yi kontaan naa uh-huh, uh-huh. bu baax a baax. amiin ñun ñëpp waay ñun ñëpp kay. yàlla yàlla bàyyi la fi nga ni a bu baax a baax. amiin amiin ñun ñëpp sax bi maa ngi lay seetaan mais kontaan naa trop trop trop trop. Uh-huh, maa ngi allah incha allah bu baax a baax kontaan nañu seetaan a baax. jërëjëf sax bi jërëjëf waay trop. vraiment yal na yàlla kontaan. macha allah jërëjëf waay kontaan na trop merci beaucoup jërëjëf jërëjëf Cheikh bi vraiment mbokk moomu ñu ngi koy gërëm moom itam ci ñun ñëpp kontaan nañ ci yéen itam. ndax bu ñuy waxtaan mu war leen ñu yéen ak ñiy déglu loolu dina ñu jox yitte waaye bu ñuy waxtaan te dégluwoo leen ñu daf ñuy xaw a découragé te leer na ne li ñuy wax yéen ngi koy suivre kon tey fi nekkoon ñun ñëpp ñoo ko bokk wax dëgg yàlla fi mu tolloon fu am solo la mhm. mooy mhm. Euh, ki fekk si julli mhm. war na xool fan la fekk su fekkee ne jël nañ seen loxo teg ci oom bi ruqoo yow nga fekkee ruqu bi xamal ne euh, rakka boobu am nga ko mhm. mais boo ñëwee fekk nag ñu siggi même boo àndee ca rakk ba da nga cee ànd sunnaal ko mais amatoo ràkk mhm. da nga cee ànd noonu rek kon nañuy xool fan la ñu fekke mhm. lu am solo soo ñëwee fekk na yow benn bii rëcc na la ñaareelu rakka bi fekk nga teg sa loxo ci oom beneen ngay indi mu desit leneen takk bii biiraat yooyu noonu xam nga mën nga ñëw fekk kàbbar yi raw la nee naa la boo taxawee bu njëkk bi juróom-ñaari kàbbar la mhm, mhm. nga ñëw fekk mu raw la ndax kàbbar yi da koy def kenn du ko fay mhm. kàbbar yi doo ko fay loolu laa doon da ngay kàbbar rek da ngay kàbbar moom la des ca kàbbar bu boobaa doo ko fay soo fekkee musulma ba pare jógal nga julli comme ni ñuy jullee jullee mais ko fay doo ko fay soo fekkee benn rakk jógal nga fayaat beneen rakk ba comme na mu manqué woon ak i kabaram nag bu boobaa boobu moom booy ñëwaat di ko fay beneen rakk bi da ngay indi kàbbar yi. ni maanaam ñëw naa fekk imaam ñaari rakk la war a julli bi. waaw benn rakk laa la fekkee. Mhm. kon beneen bi ma tardé su ma koy fay damay indi kàbbar yi. da ngay indi kàbbar yi mu mat. bokkut ak ma ñëw fekk. kàbbar yi am yu ma ci raw. xam nga léegi bu ma leen juróom-ñaari kàbbar. Mhm. soo ñëwee rek da nga naan allahu akbar. Mhm. kàbbar yi loo fa fekk moom nga cee àndal. doo nekk naan da ngay jéem a fayaat. benn. fayaat nga dana jafe xamoo ci ñaata kàbbar la toll mhm. ñëw nga rek daw nga fekk nga imam commencé naan allahu akbar allahu akbar mhm. soo ñëwee àndal fa mu yem mhm. kooku moom doo fayaat kàbbar ya la raw su fekkee ne nag léegi daf la raw rakka rakka bu njëkk bi bu la rawee ba pare te boobu rek moo la mën a raw ñaareelu rakka bi nga jóg nga taxaw nga def yow sa juróom benneelu kab sa juróom benn kàbbar boobu moom da ngay fay kàbbar ya nam waree mais kàbbar yu la raw ci biir julli gi yooyu doo ko macha allah loolu am na solo trop Mor euh, fan yii rek dama jiite benn professeur mat mhm. benn professeur mat mhm. rawee naa ko rakka ndax man ñëw naa premier rakka bi mhm. mu ma dabee daal ci sama deuxième rakka parce que sentir naa ko sama côté ma toog taaya premier deuxième rakka ma toog taaya mu toog taaya ànd ak man ban julli la woon noonu julli timis timis ma jóg indi sama troisième rakka mu jóg ànd ak man ma sëlmal mu sëlmal <laughs> ma ne ko lii du mathématique <laughs> ma ne ko prof mat bii déggoo ko euh, ma ne ko say jóg indiwaat beneen parce que yow parce li ko def mooy dafa xamul mm-hmm. ci sujjóot la ma fekk daal mm-hmm. daf ma fekk may sujjóot waaw mu ñëw ànd sujjóot ak man boobu amatul rakk déedéet li ma xamul mooy xam nga li ma xamul mooy dafa xamul fan ngay fekk imam pour nga mën a bokk ci rakka bi waaw mooy li ma la waxoon ah, mooy <laughs> soo ci fekkee imaam bokk nga ci. waaw <laughs> kay sunu rukkoo ba raw ba amoo rakk. mu ngoog loolu la xamul ñu jóg mën ko yógal julli beneen bii moom sa mat bi moom defe naa ne wér na la <laughs> mathématique julli c'est très important. dëgg la nga xam ko loolu dafa am solo. dëgg euh, kon Mor loolu am na solo trop gannaaw bu ñu xamee salaatul eid léegi nag li aju ci wàllu Ramadan laylatul qadri ñu bari dañ koy faral di def ci bés ni tey lu mel ni tey. ñaar fukki fan ak juróom benn jëm ci ñaar fukki fan ak juróom ñaar li am solo mooy ci guddik laylatul ci guddik ramadan la nekk damay wax nitu yàlla yi dëgg dëgg dëgg dëgg ramadan gi yëpp chaque jour dañ naan teel a laylatul xadri dama ne ñun bañ nekkee xale bu ñu jëlee mbokk mi alo salaamaaleykum allo Oustaz Samson waaw kay Adja man la Maguette Dieng Maguette Dieng fan ngay wootee maa ngi fii ci ñetti mbaar fii ci def ñooy Diame ñoo ngi suivre sa émission bi chaque jour. waaw waaw waaw waaw. Uh-huh, uh-huh. ngi ciy jàngee. macha allah alhamdulilah. ay xale lañ waaye ñu ngi ciy kay baax na trop waaw. ñu uh-huh. ngi lay ñaanal gudd fan ak wér gu yaram. amiin amiin amiin ñun ñëpp waay amiin amiin. laa bëggoon. xéewal moom ma xool ndax. Euh, waaw bàyyil kon ñu jël ci suuf waaw merci beaucoup merci merci Maguette jërëjëf jërëjëf téyel ligne bi waaw téyel ligne bi gars yi seen yaram dafa tàng xéwal yi dañ ko bëgg joxe rapidement avant koor gi waaw <laughs> <laughs> merci am na solo trop euh, l'essentiel li ma bëgg a wax moom ci ramadan la nekk hmm. bu njëkk bi nekkee xale dañu doon wax naan yàlla muus la ko xamal hmm. waaw ma ne mais muus moom lu tax yàlla di bàyyi nit ñi xamalu leen ko dem di ko xamalu muus lu mu leen di jëriñ kon yàgg nañuy xam ne bés bi yàgg nañ koy natt xam nga su ma toogee na la bi ma nekkee xale xëy na yàggul waaye daan nañu wax ne muus la ko yàlla xamal kon yàgg nay réer doomu aadama ci ay natt lañ koy def ci ay natt bu dee nangam bu dee nangam bu dee nangam mais li am solo muy nitu yàlla yëpp guddi gu jot ñoom dañuy jàpp ne tey la laylatul qadri ndax yàlla bi mu ne inna anzalnaahu fii laylatul qadri moom laa ubbee wa ma adraka wa ma adraka ma laylatul qadri mm-hmm. jox na laylatul qadri importance ci wàccuk alquran ci wàcc mais wax na itam shahru ramadan alladi unzila fihi alquran kon ci biir weer yëpp encore yàlla na ne ci biir weeru koor ci laa wàccee alquran kon ramadan bi ci bo defe naa ne loolu am solo dama xamul nag Mor lan ngay wax ci laylatul xadri ak yi nga xam ne moo ci euh, jërëjëf mhm. laylatul xadr moom it ñaari baat la mhm. layla mooy firi guddi xadr mhm. mooy firi dogal kon ñu ni mooy guddi gi nga xamante ne yàlla ci lay dogalee am am yeeg xew-xew yi mhm. am ñu ne déedéet dafay firi rek teddaange mooy mhm. sharaf mhm, la sharaf lay kon daal guddi gu màgg la léegi nag lan moo ko tax a màgg lool sànq wax nga ko ci lan wàcce quraan xam nga quraan boo koy seet matoon na sëkk nekkoon ci lawxul mahfuz alluwa bu yàlla yor denc ko naka la alluwa nu mel xamuñu ko waaye alluwa bi am na yàlla bind ci quraan ba mu jeex tàgg ba mu mat sëkk yor ko ca moom mhm. léegi bi yàlla yore quran boobu da ko wàcce fi baytil izza mhm. fi sama i dunia mhm. quran boobu ñu wàcce ko ba mu ñëw ci asamaan si boo demee asamaan bu nekk dafa am benn bayt am tur bu àdduna bi ñu tuddee ko baytul izza baytul euh, bi mu ñëwee wàcce ko ci asamaan si bis bi mu ko wàccee nag boobu ñu ni moom mooy guddig laylatul mhm, qadr mhm. bis bi quraan wàcc mu jóge ci sunu boroom doon lumm ba tey kenn tasagu ko wàcc ci àdduna bi mhm. boobu bis boobu guddig laylatul qadr la après nag ci la jibril alayhi salaatu wasalaam di jël par aaya di jël dégg nga maam par saar di ko wàcc ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga gis ne ko kon ñetti marxala lay jaar lawxul mahfuz mhm. baytul izza mhm. bi wasitati jibril alayhi salaatu wasalaam léegi nag la ci am solo mhm. mooy wàcce gi ci boppam nee na nu ci guddig laylatul qadr inna anzalnaahu fi laylatil qadri bi day dellu ci quraan nag kañ la laylatul qadr maa ngi ciy corrigé kenn mu démb inaa anzalnaahu fii laylatul ma ne ko laylatu fii laylatul xadri fii la waaw <laughs> fii laylatul laylatil xadri tii ba ngoog léegi euh, <laughs> mu des kañ la hmm. ban bis la hmm. li nga xam ne daal am nañ ci lu leer mooy yenent bi alayhi salaatu wasalaam nee nañu ci lu wér mi ngi ci fukki fan yu mujj yi hmm. benn kon jàppal fukki fan yu mujj yi ñaareel ba dafay nekk ci fan yu tóol yi yu tool yi mooy euh, mooy ñaar fukk ak ñett juróom juróom-ñaar di dem mhm. kon yii ay signal yum ñu jox la mhm. te li ëpp solo ci signal yum ñu jox mooy fukki fan yu mujj yi mhm. taxarruha fi l ashri al awaaxir fi ashri al awaaxir min ko léegi nag bi mu doonee ci fukki fan yu mujj yi amaat yeneen xaddis yu ñëw yoo xamante ne dafay xew a junj ñaar fukki fan ak juróom-ñaar mhm. nee na nu am na soxna su màggat su ma sa ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mhm. ne ko man de su ma sañoon dinaa dundal guddi gi mhm. te nag di ko topp rek di ko napp dana metti ci moom ciy bu ma ko xamoon yonent bi ne ko fa alayka bi saabi wal ishrin maa ngi lay digal nga napp ko ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar loolu lépp ñu ne kon la beneen euh, jàngat bu nu def ci saar bi gis nga saar bi boo ci demee hmm. te mooy inna anzalnaahu fi laylatul qadr hmm. soo demee ba ca saar ba am na fa hiya salaamun hiya salaamun hiya hmm. nee nanu saar bi fanweeri baat moo ci nekk saar bi boo ko doon xool moo yi trente moo moo ci nekk soo demee ba ci hiya moom mooy vingt-septième moo te mooy hiya laylatul qadr salaamun hiya hiya wañ ba àgg ci yie hmm. vingt-sept mots la lay jox lu ci mënta xew rek ñu ni la lu ci mënta xew rek jàpp naa ne ay natt la ay xayma ndax yàlla da ko nëbb jullit ñi dëgg la moom dèjà ay natt la ak ay natt la ça ne veut pas hmm. dire que hmm. natt bi laylatul qadr ci boppam baat bi neuf lettres la mhm. laylatul qadr boo doon wàññi xaraf yi mhm. juróom-ñeent la mhm. mu ñëw ci saar bi ñett yoon trois fois neuf muy vingt sept vingt sept kooku it ci xayma yi yooyu tamit ci xayma yi la waaw mais nag li nga xamante ne mooy li wér nga xam ne ku ko def incha allah yaa ngi ci biir laylatul qadr mooy bu desee fukki fan màggalal fukki fan yëpp lii daal mooy loolu la def ci ashrul awaaxir waa naka la ci naka la ci yónnent bi daan def moom i'tikaaf la daan def mooy màggal moom jadda wa shaddal mizar mhm. yee njaboot gi yëpp di def xiyaamu layli yónnent bi mhm. daan na ko def moom di ko gën a renforcer mhm. mais nag li ñu ci a wax mooy tekkiwut ne eh, li ci ne yëpp ci guddi gi la ko yàlla tënk parce que xéewal guy waaj a jeex lu mu waxoon awaluhu rahma awaluhu rahma wasatuhu wa awsatuhu maxfira wa axiruhu itqun mina naar ñu ngi ci axir kon fukki fan yi trente jours yëpp dix jours yu nekk am na lu ko yàlla jagleel te benn bu jën ne xéewal la dëgg su ko defee eh, comme ni ma la ko waxee rek eh, benn bu ne ramadan bi yëpp yëpp yëpp daal ku ko woor guddi gu jot nga màggal ko la ca lañ cay naafila na lay wër ne yàlla buy fay dara ji yëpp la yàllay fay loolu defe naa ne moor am na solo allo salaamaaleykum allo waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi delloo ziar Mor Diop waaw na ngeen def. maa ngi sant yàlla bu baax. jàmm rek alhamdulilah. waaw Saaf na ko bu baax. ah kay alhamdulilah. waaw damaa bëggoon fàttali émission bi. waaw. damaa am nu ma déglu sax wax ko léegi rek. waaw. ma déggee ko ma déggee ko ne neneen ñu bokkul ñu mu ko wax ma doon ko laajal. acca ah, bismillah loo dégg. dafa wax ne boo dabee imaam ci ñaar rakkay indi. waaw. dañoo fekk imaam taxaw ci premier rakka bi te xamoo. nan moo raw ci kàbbar yi. Mhm. wala boobu ñëw fekk imaam bi. waaw nee bi imaam jee kàbbar boo ñëwee fi nga imaam da ngay àndal ci kàbbar ci kàbbar gi waaw. waaye boo noppee nee raw ci kàbbar doo ko waaw. mu ne ci première rakaat bi. waaw. mu ne nee raw ci kàbbar doo ko fay da ngay ànd imaam julli ji rek. Mhm. kon léegi nag ma dégg keneen man boo fekkee imaam foofu. moom mii. Mhm. waaw maa maa dégg kenn. waaw. mu ne bu fekkee imaam mu taxaw boobu di kabar. bu fekkee da nga ñëw yow tam dugg ci da kabar. boo kabaree da ngay wan ni fi nga toll waaw. ci imaam jeexalee kabar bay kabar yi la raw. doog a ànd ak imaam ci ci ci ci ci ci julli. waaw. ma dégg ba yenn saas wax loolu. démb laa ko seetaan a mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. bi am na solo. baax na jërëjëf jërëjëf sax euh, wax euh, am na solo. Euh, xam nga tey lislaam wuute gi da cee bari. gis-gis yi bari ci rawatina ci wàllu fiq gis nga loolu noonu. ma ko wax ci ne kenn du euh, fay kabar yi kabar yi mm. xëy ñu xëy wax ko mm. dafa am fun ko wéer mm-hmm. wéer nañ ko ci waxu boroom xam-xam yi képp ku xam Useymin euh, mm-hmm. borom xam-xam la bu mag bu nekkoon ca daarul ifta ca màkkatal mu karam moom xaaral ma jël mbokk mi may ko suukaru koor wala suukaru yi allo. maaleykum. Mm. waaleykum salaam. waaw cheikh bi. ah oustaz kontaan nañ trop. jërëjëf Faye. Uh-huh. kontaan.